Три są pełnym bryjką. Ale ambitnie do mnie trudna gra w momencie. Lu nastąpi za. Ja nie dowiedziałem tej Jak lampy. Mhm. Voilà. Voilà la situation chez moi. Oui. C'est ça la situation chez moi. revenir. waaye tout ça char de combat et cetera tout c'est pour moi je ne suis pas condamné il a pas de décision judiciaire mais je suis un citoyen libre dont on empêche de circuler et de vaquer ses occupations donc tout ce que vous voyez là et c'est toutes les issues yoon boo jël fi mu ne nii nii la juge terewu ma génn amul lenn lu ko tere mais nee nañ waruma génn sama kër loolu mooy Sénégalu Macky Sall et voilà ce ma famille C'est interdit de sortir. Ah, vous le passage. Par qui ah. Hein

Parce qu'un policier ne tire pas sur vous. Vous ne pouvez même pas le risque des gens. Moi, là où je suis, qu'est-ce que je peux vous faire Quel risque y a-t-il de charger euh, un fusil à pompe pour tirer C'est ici que ça se joue. Ça se joue ici dans la tête. Vous n'êtes pas des criminels, vous êtes des citoyens sénégalais. Demain, on va se retrouver dans la rue, vous et moi. Probablement, on n'est même pas là. Macky Sall jarul lii li mu leen di def foofu bu leen ko nangu. ok foo leen keneen dara soo tiré woon nit dee fi après lan nga ci gagné. ok donc utiliser vos cerveaux. Donc voilà, il est interdit de sortir de chez lui. Nous pouvons considérer euh, qu'il est en résidence surveillée. Il veut déposer son fils qui a cours à 12 h vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. C'est la police Parce qu'un ordre, on l'exécute manifestement illégaux, nul n'est tenu d'obéir. Mais voilà euh, à quoi est réduit aujourd'hui la police, à se mettre au service des choses illégaux, illégales disons. Donc il ne peut pas amener son fils à l'école, interdit de sortir. Donc personne ne peut ni entrer ni sortir du quartier. donc yéen a ko gisandoor yéen sénégalais yi fii ci cité Keur Gorgui Ousmane Sonko qui voulait amené son fils à l'école et interdit euh, de sortir. Une ruelle barricadée par la police. Nous allons voir où ça terminer. Donc il est en train de demander qui est le chef qui donne des ordres ici. Je veux dire à tous les Sénégalais. Même, même. Vous, vos enfants sont à l'école aujourd'hui. Moi, mon fils doit aller à l'école, comme vos enfants. Et vous l'empêchez d'aller à l'école. Sur quelle base À tous les Sénégalais souvent qui disent, oui, les fils de son ne vont pas à, à une manifestation. Hier, des policiers ont photographié ici mes fils. Google Kochi TikTok pour dire fils de Serge de Sonko ne vont pas. Ça, c'est pas de la police. On expose ma famille. Et c'est pas méchant, parce que ma famille, elle a fait le choix comme moi. Je dis tous les Sénégalais, ce que mes, ma, famille vit, amul benn famille bu koy vivre. ñu ngi leen di saaga ñu ngi leen di góor ñu ngi leen di tere dem euh, jàngi. a eu du travail. loolu. quand les gens parlent de sacrifice, il n'y a pas de famille qui subit plus de sacrifices au Sénégal que la famille de Ousmane Et aujourd'hui, vous tous seen i doom ñu ngi école lekk na xaalis réew mi ba tool ni mu toll mu ngi wër di dox soxlaam mais vous on vous dit le fils de Sonko ne doit pas aller à l'école donc euh, vous avez vu par vous-même euh, son fils interdit d'aller à l'école son père interdit de le ramener à l'école résidence surveillée illégale illégitime lii moo xew cité kër góor gi lii moo xew cité kër góor gi lii mësul am du jamais vu au Sénégal il est interdit de sortir doomam mënul jàngi école te amul benn juge bu dogal lii lii moo xew fii ci cité kër góor gi nous prenons tous en témoin de ce qui se passe au Sénégal cette dictature qui est Donc euh, il est obligé de rentrer chez lui parce que mënul génn te su forcé woon génn ay il en a parfaitement le droit ñu ne dañuy yee na te yàlla xam na ne ñoom képp ñoom ñooy yee na ndax nit bëgg a génn këram nga nekk doo dem doxe say soxla ci loo xam ne teguñu ko fen au nom de quoi au nom de quoi donc euh, on va voir il va essayer de passer par l'autre chemin va Donc ils ont reçu ordre, comme ils le disent, qui ne doit pas passer. même si son fils doit aller à l'école mbokk yi li moo xew cité Keur Gorgui Ousmane Sonko dañ ko tere génn koñam te mënul sax yóbbu doomam école waaw ki nga xam ne mu ngi am cours mais non donc gis nga leen da ngeen defar seen dispositif waaye donc beneen parti bi aussi dañ ko tere génn donc pour rappel Ousmane Sonko n'est pas sous résidence surveillée en tout cas benn juge dogalu ko mais tey jii son quartier est encore assiégé une nouvelle fois lii na duggalit am na fi amaat fi waaye xëy na dañ ko ñam mu neex ñuy dolli fi mu nekk nii jaar nañ yoon bële ñu ne mënuñu génn jaar nañu yoon bi aussi ñu ne duñu génn du génn cité kër góor gi ñoo ngi dem ci beneen yoon bi pour xool parce que dafa mel ni ñoom ñëpp apparemment ils ont reçu l'ordre que bu mu génn koñam il n'a pas le droit de sortir chez lui tel est l'ordre reçu par la police Donc il a voulu conduire lui-même son fils à l'école. mais il est interdit de sortir du quartier donc maanaam cité kër góor gi fii Ousmane Sonko dëkk kenn amul droit dugg kenn amul droit génn rawatina moom donc euh, ils vont priver de liberté un citoyen sénégalais mais surtout priver de liberté un jeune qui doit aller faire cours donc euh, il est clair que la liberté de se mouvoir dans ce pays restaurant dafa ñoo xam ne lu ñu waaye lu lañ neex wax lu lañ neex def mais am ñoo xam ne pour ñu génn seen voilà li moo fi xewoon mbokk yi cité kër góor gi ah rek moo fi xewoon euh, ñu tere génn ñu tere Ousmane Sonko génn këram yóbbu doomam mu jàngi gis ngeen oto bi aussi ba fa bëggoon génn mais interdit maanaam amul droit génn maanaam koñ bi képp ku fi dëkk amoo droit dugg ci koñ bi amoo droit génn ci koñ bi nga am soxla nga ñàkk ko am nga war a doxi say soxla nga war ko bañ a doxi maanaam li fi xew fii musul am Sénégal te yéen yéen a mën ko seede vous êtes témoin de l'histoire vous êtes témoin de l'histoire jërëjëf